والحمد لله الذي اتصف بالرحمة رأفة وحلما أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره سبقت رحمته غضبه وأسبغ علينا من نعمه رزقا وأمنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاء ربنا واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمه والهدى صلى الله على اله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد mbokk jullit ñi ñoo ngi sant suñu boroom subhaanahu wa taala mi nga xam ne yërmaande moo gën a yaatu lépp waaye ñoo ngi sant boroom bi nga xam ne subhaanahu wa taala dafa melokaanoo melokaanu yërmande ci lawet gu mu lewet ci ay jaamam ak ñiwite gi mu am ci ñoom di ko sant di ko gërëm moom borom bi subhaanahu wa taala waaye di ko tagg di ko jéggalu suñuy bàkkaar borom boobu yërmaandem jiitu na meram borom boobu sëmbërtal na ci ñun ay xewel lii di xewel wërsëg ya ca des di xeweluk sécurité di seede amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg deesu ko bokkaale seede goo xamante ni dañ ci yaakaar mucc bis ba ñuy dajeeg moom borom bi subhaanahu wa taala waaye di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la te di ndawam mu yónni ko jox ko njub waaye yónni ko mu nekk yërmande yal na yàlla julli ci moom aki i saxaabaam ak mboolem ku topp seen yoon ba yowmal xiyaam mbokk yi nañu bokk ñun ñëpp xam ne suñu diine jii diiney jikko la jikko yoo xamante ni jikko yu am ngëneel la waaye diine la joo xamante ni dafa ñëw ngir jox jullit bi koy dund ay melokaan yu mat looloo tax suñu borom tabaraka wa taala bi muy melal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo melal ci la gën a taaru ci ay jikko melalu ko ci juddu melalu ko ci askan melalu ko ci daraja waaye ci jikko la ko melal moom yàlla subhanahu wa taala ne ko wa innaka la ala xuluqin yaa ngi ci njombaxtanu jikko yu màgg ya moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tam gi ko yàlla yónni yàlla da koo def mu ñëw di mottali jikko yu kawe yi ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na innama bu'ithtu li utammima makaarima al axlaaq yàlla damaa yónni ngir ma ñëw mottali jikko yi nga xamante ni moom mooy jikko yu rafet jikko yu baax yi loolee ni ko yàlla yónnee moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw di mottali jikko yu baax yi yàlla tagg ko ci ay jikko loo la ko doon appliqué moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dundam gi da ko doon appliqué ci jëf moo tax anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne liggéeyal naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at te mosumaa wax cam mosumaa def dara itam mu ñëw ne ma lu tax nga def lii mosumaa bàyyi dara itam mu ñëw ne ma lu tax defoo nangam ngir lan ngir jikko bu rafet bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan jëflante ak ñoom mbokk yi ñun xeet wii di xeetu lislaam nekk ay jullit ñoo gën a yey ñoo gën a jaadu ci melokaanoo ay jikko yu rafet ndax suñu diine jii di diine lislaam daf ñu cee soññ ci jullit di muy takkaayoo ay jikko yu rafet waaye daf ñu cee xememloo tiyaabo ya ca nekk toftal ci itam ay fay yu màgg yoo xamante ni jullit bi jikko ay jikko yu rafet fay yu màgg yooyu la ciy bénéfice jëlee nañ ci sunu yaay Aïcha radiyallahu anha mu ne dégg naa yenent bi sallallahu alayhi wa mu ne jullit bi dina jot ci rafet jikkoom daraja koo xamante ni dafa taqoo di taxaw guddi di naafile dafa taqoo di woor bëccëg yi ki nga xamante ni dundam gi yépp da koo jeexal ci guddi gu nekk dana naafile jug jullil boroomam subhaanahu wa taala ni ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defee bëccëg yi mu di ko wooral borom bi subhaanahu wa taala tiyaabo googe yàlla di ko bindal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit dana am ci jikko ju rafet jikko yoo xamante ni da koy jox darajay kookee nga xamante ni dafay taxaw di xiyaamul layli guddi gu jot waaye di woor bëccëg gu nekk kon loolu rek bu ci nekkoon ci ngëneel dama ne jar na jikko bi takka jullit bi takkaayoo ay jikko yu rafet jëlee nañ ci abi darda radiallahu anhu mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa min cheyin athqala fi lmidaani min xusni alxuluq mu ne amul lenn lu gën a diis ci jëf yu baax ci balance bi ñuy peser jëf yi yowm alqiyaam nee amul lenn lu fa gën a diis jëf ju jikko ju rafet ndax xam ngeen ne yowm alqiyaam wal waznu yowma idin alxaq yàlla nee na peser keroog moom mooy dëgg dañuy teg say jëf yu baax teg say jëf yu bon di ko pesé fa man thaqulat mawaazinu fa ulaika humul muflixuun ñi seen jëf yu baax diis ñee ñooñu texe waaye wa man xaffat mawaazinu fa ulaika alladina xasiru anfusahum ñi nga xam ne seen jëf yu baax nag dafa woyof yàlla ni na ñooñu ñooy ñi perte fii jahannama xaaliduun dañ leen di dugal sawara ñu sax fa wal iyaazu billah balance yooyu ñuy peser jëf yi nag yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul lenn lu ci gën a mën a diis jëf euh, jikko yu rafet kon jikko yu rafet am na solo lool mbokki jullit ñi jikko bu rafet nekkul loo xamante ni dañ koo tënk ci benn wàll bàyyi geneen wàll gi ca des déedéet mbooleem ay wàll yi jullit bi di jëflante dañ cee sàkku ci moom mu yor ci jikko bu rafet dafay ñëw ci ay wax booy wax na sa wax rafet sa diggante ak say mbokki jullit day ñëw ci jëf yi booy jëflante ak say mbokki jullit na nga jëflante ak ñoom ci jikko bu rafet waaye tey di nga jëflante ak nit mu jëf la jëf joo xamante ni dootoo bëgg a jëflante ak doomu aadama ngir lan ngir jëf ju ñaaw ji mu la jëf jikko bu ñaaw bi mu la wan ci jëflante bi nga xamante ni moom ngeen jëflante waaye itam jikko ju rafet dafay nekk sa diggante ak sa borom subhanahu wa ta'ala ci say jaamu yi nga koy jaamu nga rafetal ko rafet ci jikko sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala waaye dafay nekk sa diggante ak mbindeef yi moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne wala tastawi alxasanatu wala sayi'a idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim borom bi wala tastawi alxasanatu wala lu rafet ak lu ñaaw nee na du ñu mos a yemoo kon nag yow idfa billati hiya ahsan chaque jour del jëñ del joxe li gën a rafet waaw mu ne ndax nit ki su fekkente ni noonoo dox na sa diggante ak moom chaque jour ngay rafetal di jëmee ci moom di ko wan jikko bu rafet nee na kookee dafay mujj ba mel ni sab xarit noon gi mu la ëmbaloon dafay daal di dëñ moo tax ibnu abbas bi muy firi aaya boobu dafa ne amara allahu almuminina bilsabri inda algadab walxilmi inda aljahli walafwi inda alisaa fa ida faaluu dalika asamahum allahu min alcheytan wa xadaa lahum aduwuhum ka annahu waliyun xamim ibnu abbas mu ne borom bi tabaraka wa taala dafa digal jullit ñi jamono bi ñu meree ñu muñ waaye jamono bi nga xamante ni dañoo réer ñu ànd ak lewet waaye jamono bi nga xamante ni dañoo ñaawal jëmee ci ñoom ñu baale nee na bu ñu defee lii de yàlla tabaraka wa taala dina leen musal ci shaytaane waaye dina toroxal seen noon ba mu mujj nooyal ko mu mel ni ab xarit ci yow mbokk jullit ñi rafet jikko sabab la ci nga am ngëneelu euh, mbëggeelu borom bi subhaanahu wa taala jëlee nañ ci usaamata ibnu sharik radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na borom bi nee na ahabu ibadillahi ila allahi ahsanuhum xuluqa ñi gën ci jaam yàlla yàlla ñi mu gën a bëgg ci ay jaamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy ñi ci gën a rafet jikko ñi nga xamante ni boo leen càmbaree ay jikko yu rafet jikko yu baax makaarimul axlaaq lañu yor nee na ñooñu de ñooy ñi na gën a bëgg ci ay jaamam rafet jikko mbokk yi dafay waral nga am mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jullit bi nag su amee ñaari mbëggeel yi muy mbëggeelu yàlla ak mbëggeelu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam amatul leneen lu muy soxla te itam da koy jural mu jege yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyaam te kenn ku ci nekk ci ñun bëgg nga yowmal qiyaam boo dekkee bokk ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam aljanna ku ko bëgg na nga rafetal say jikko jaabir ibn abdallah radiallahu anhu mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyama axaasinukum axlaaqa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi nga xamante ni ñoom laa gën a bëgg ci yéen te ñooñu ñooy ñi may gën a jege yawmal qiyaam nee na mooy ñi gën a rafet jikko ci yéen waaye ñi nga xamante ni ñoom laa gën a bañ te ñoo may gën a sori ci yéen tooguwaay yowmal qiyaama nee na mooy borom jikko yu ñaaw yi mooy borom jikko yu bon yi mbokk jullit ñi suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo xemem ci ay jëf yoo xam ne dafay wisaare booloo ci diggante jullit ñi dafay wisaare mbëggeel ci diggante jullit ñi jëf yooyu nag day jaadu ci jullit bu nekk mu xam ko waaye bu xamee itam du doy mu xam ko rek waaye da koo war a jëfee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci xadiisu abi hurayrata radiyallahu anhu laa tadxulul jannata xatta tu'minu maa ngi waat ci yàlla ne du ngeen dugg aljanna mukk lu dul ne da ngeen a am imaan mooy da ngeen a gëm borom bi subhaanahu wa ta'ala gëm li yàlla subhaanahu wa ta'ala gëmlu weddi li yàlla subhaanahu wa ta'ala weddilu moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala ci suratul baqara lu mu wax fa man yakfur bit taaguut wa yu'min billah képp koo xamante ni da ngaa widdi taaxut te mooy lu ñuy jaamu te du yàlla nga teg ci wa yumin billah yàlla mu ne faqad istamsaka bil urwati l wuthqa la nfisaama laha kooku jàpp na ci buum ki nga xamante ni du dagg te mooy buumug laa ilaha illa allah kon nit ki day gëm waaye lan lay gëm mooy li yàlla ne nañ ko gëmlu waaw parce que ay nit ñaa ngi fiy gëm lu yàlla gëm gëmloowul kenn nga gëm ko kon li ngay gëm day tegu ci baasu li yàlla subhanahu wa taala bëgg na jullit bi na ko gëm te ngëm googu dafa am juróom ponk muy gëm yàlla gëm malaayka yi gëm yonent yi gëm téere yi gëm bis penc gëm dogal ba ca neex ak ba ca naqari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na du ngeen dugg aljanna mukk mukk mukk lu dul ne ngëm googu dafa nekk ci yéen wala tuminu xatta taxaabu te ngëm googu itam du ngeen ko am mukk lu dul ne da ngeen a bëggante bëggante dox ci seen biir comme ni mu ko waxee ci beneen xadis laa yuminu ahadukum xatta yakuna xatta yuhibba xataa euh, ni mu ko waxee ci beneen xadis kenn ci yéen ngëm yàllaam du mat lu dul li mu bëggal boppam la bëggal mbokkum jullitam kon mbëggeel googu faaw mu dox ci diggante jullit ni mbëggeel googu bu amul rek ngëm yàlla nekku fa yow yaay woote woo ab jullit waaye sa xol bi ngëm nekku fa yeneen bi teg ci ne ala adullukum ala cheyin ida faaltumuhu taxaababtum xanaa duma leen tegtal loo xam ne su ngeen ko defee da leen di may mbëggeel ngeen bëggante seen diggante saxaaba yi ne ko ah kay mu ne afshu salaama baynakum siiwal leen nuyoo ci seen biir siiwal leen nuyoo ci seen biir moo tax nuyoo dafa nekk loo xamante ne lu ama am solo la nit ki dinañ ko fonk dinañ ko bëgg dinañ ko naw ci nuyoo gi muy nuyoo waaw léeg-léeg nga romb nit ñoo xamante ni xamoo leen xamuñ la waaye saa yoo fa jaaree nuyu leen nuyoo googu bu ko xeeb day dem bu mbëggeel lay jur sa diggante ak ñoom waaw ci ki xam ci ki nga xamante ni xam na baatu nuyoo li mu ëmb ki nga xamul sax li ko li mu ëmb soo koy romb chaque jour di ko nuyu bu yàggee daf lay ëmbal mbëggeel loo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne mbir a ngi nii su ko defee di ngeen bëggante te mooy siiwal leen nuyoo ci seen biir kon loolu day jaadu ci jullit bi képp ku mu dajeel mu nuyu ko moo xam ko mu xam la moo xam ku mu xamul la waaw léegi la nga gis ci nit ñoo xamante ni ku ñu xam rek la ñuy nuyu waaye ku ñu xamul duñ leen nuyu loolu dafa juyoog njàngale yent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa bi ñu ko laajee ana ban lislaam moo gën ci lislaam yi dafa ne mooy ngay joxe ñam di julli guddi waaye di nuyu koo xam ak koo xamul mbokk yi bokk na ci liy waral mbëggeel googu te bokk ci màndarga yi feeñ ci wane ne nit ki am na jikko bu rafet mooy ngay muuñ di wane mbëgte ci sa kanam ci say mbokk jullit waaw ngay eh, ubbi sa kanam bul di tëj sa kanam fu ñu la fekk nga ñàngal fu ñu la fekk nga mer waaw lenn ci nit ñi jàpp nañ ne sax foo leen fekk ñu tëj seen kanam yi ñàngal mer loolu da leen di jox xëyba dañoo jàpp ne loolu da leen di jox caractère wala dañoo jàpp ne loolu da leen di tax a nekk góor yàlla dëgg déedéet mbir mi nekkul foofu yéen loolu lim lay jural sax mooy mbañaange la lay jural ci xolu doomu aadama yi mbañaange la lay jural ci xolu nit ñi looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu waxoon ne jullit bi mooy ki nga xamante ni dafay jaxasoo ak nit ñi nit ñi di jaxasoo ak moom mu ne nag yiw nekkul ci jullit bi nga xamante ni du jaxasoo nit ñi kenn du jaxasoo ak moom moom daal foo ko fekk day beru rek waaw kon loolu jullit bi war na cee bàyyi xel bu baax a baax a baax loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa sàkku ci ñun ñuy dugal mbégte ci suñuy xolu mbokki jullit dafa sàkku ci ñun bu ñu dajeeg suñuy mbokki jullit donte ne da ngay muuñ sax bañ koo ñëkkal sa kanam loolu yonent sa sallallahu alayhi wa sallam da koo sàkku ci ñun ci xadisu abi zar radiallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne laa taxqiranna min almaarufi shay'an walaw an talqa axaaka bi wajhin talq mu ne bul xeeb ci def lu baax bu ci xeeb dara mu ne donte dangaa dajeeg sa mbokku jullit nga ubbil ko sa kanam yaatalal ko sa kanam nee na loolu bu ko xeeb ndax wolof day wax ne euh, kanam du kaso koo ko tëjal mu xam ko waaw loolu ñun ñëpp koy léebu kanam du kaso waaye koo ko tëjal mu xam ko yenent bi nag nee na bokk na ci def lu baax bu ko xeep mooy boo dajeeg sa mbokkum jullit ubbil ko sa kanam ba mu mën laa ñeme bu ko tëjal sa kanam yonent bi waxaat ci beneen xadis mu ne wa tabassumuka fi wajhi aqiika sadaqa mu ne muuñ gi ngay muuñ rek jàkkaarloog sa mbokk jullit bi nga muuñ rek nee na loolu sarax la nee na loolu sarax la kon bul jàpp ne daje gi ngay dajeeg sa mbokk jullit muuñ loolu bul jàpp ne ñàkk faydale la wala bul jàpp ne suufeel sa bopp loolu sarax la goo xamante ni tiyaabooy sarax la la ci suñu borom subhaanahu wa taala bindal waaye booy xool nag tey jikko yooyu da ngay gis ne nañ ñàkk nañ ko ci ñu bare bare bare bare bare ñu baree bari da ngay gis ni li leen di jàpp mooy ak rëy leen di jàpp mooy ngand ngandulu rawatina boo ñu fekkente ni yàlla da leen a nattoo ñu am alal dangay gis ne dañuy rëy rëylu ci ñu ñàkk dañuy rëy rëylu ci ñi nga xamante ni dañoo dañuy rëy ci ñi nga xamante ni sax amaana mën nañoo doon seen surga ñoom ñu doon seen patron nga xamante ñoom dañoo aajowoo ku leen wax wax ju teey dañoo aajowoo jikko yu rafet dañoo aajowoo ngay ubbi sa kanam ci ñoom parce que loolu da leen di woyofalal méttitu tumaranke bi ndax ki nga xamante ni dafa génn wuti ñëw ci yow nga koy fasal kanam di ko gëdd di ko ñaawal sa jikko ci moom méttitu tumaranke bi nga xamante ni moom la bàyyi ginnaaw méttit boobu dafay gën di yokk waaye su fekkente ni yaa ngi koy dalal di ko yaatal di ko wan jikko ju rafet di jëflante ak moom ci muamala bu rafet da ngay gis ne tumuranke gi mu bàyyi ginnaaw dafay dem ba dafay woyof même bu ko fàttewul cent pour cent da ngay gis ne dafay dem ba woyof waaye ñu ci bari ma al asaf da ngay gis ne dañuy jàpp seeni surga di leen traité traité traitation boo xamante ni dafay yokk seeni xalaat dafay yokk seeni métti tumuranke dafay yokk li nga xamante ni mooy seeni xat ak dund loolu moom moo tax l'islam daf ñoo tere lépp loo xamante ni dafay dugal métit wala muy dugal njàqare ci xolub jullit ñi lislaam dafa ñëw ngir sàmm wanteeg li nga xamante ni mooy doomu aadama bi sàmm wante ak ay xaqam jaa abdullah ibni mas'ud radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee bu fekkente ni da ngeen a nekk ñetti nit ñu ànd di dox di dem nee na ñaar ñi bu ñu beru sax di di déeyoo bàyyi kenn ki ngir lan ngir ñoom ñaar bu ñu béyoo di waxtaan bàyyi kenn ki kenn ki loolu mun na dugal njàqare ci xolam mu jàpp ne waaw ñii lan la ñuy wax ba tax ñun ñett ñu ànd ñu ñëw ba fii ñoom ñu beru fale di waxtaan seppi ma ci waxtaan bi loolu lislaam da koy bañ ñett nit ñu ànd dem ba ci biir ñaar ñi berew di waxtaan bàyyi kenn ki loolu lislaam nee na bu leen ko def kon lislaam lépp luy dugal njàqare ci xolub doomu aadama bi da ngay gis ne daf koy moytandiku loolu li nga xamante ni moom mooy jullit bi mbokk yi ki gën a yéey nag ci ñu jëflante ak moom ci jukko ju rafet jooju mooy ñi nga xamante ni ñoo la wër ci ay jegeñaale commencé ko ci say ñaari jur commencé ko ci say jegeñaale jaar ci say dëkkandoo jaar ci say soxna jaar ci say doom ñii de ñooy ñi nga xamante ni ñoo gën a yey ci nga jëflante ak ñoom ci li nga xamante ni moom mooy jikko bu rafet looloo tax ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu yent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waaye dafa ñëw ne ko yow yeneent bi man axaqu nnaasi bi xusni saxaabati ana kan ci nit ñi moo gën a yey ci ma ànd ak moom ànd bu rafet yonent bi ne ko ummuka sayaay yaay qaala summa man qaala summa ummuka waa ji ne ko ak kan mu ne ko sayaay yaay qaala summa man waa ji ne ko ak kan ñetteel ba yonent bi ne ko sa ba muy ñetti yoon ñeenteel ba yonent bi ne ko summa abuuka ginnaaw boo rafetalee ci sa yaay nag teg ci li nga xamante ni moom mooy sa pap kon rafetal googu jikko gu rafet googu ci ñi mu war a njëkk a feeñ mooy ci suñuy woy jur ginnaaw gi ci suñuy mag ci suñuy rakk ci suñuy dëkkandoo ci suñuy soxna ci suñuy doom waaye léeg-léeg da ngay gis gone yi dañuy dëkk ak way jur yi waaye duñu jox way jur yi cër bi nga xamante ni moom lañ leen war a jox nit dina dëkk ak way juram ci kër xëy liggéeyi te way juram du ko yëg te amaana ba nga jullee ba pare mënoon nga jaar ci buntu néegam nuyu ko mu ñaanal la nga dem waaye duñ ko def njaboot yu ci bari dëkkaale gu ñaaw gi ñuy dëkkaale ak seeni wayjur jéggi na dayo kon loolu njaboot gi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax amul kenn ci kaw suuf ku gën nga jëflante ak jëf moom jëflante bu rafet ki nga xamante ni moom mooy sa ñaari way wayjur na yaay bi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiital ci xadis bi moo tax ci xadisu Aïsa radiyallahu anha yonent bi ne xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli yenent bi ne ki génn ci yéen mooy ki gën ci njabootam ki nga ki nga xamante ni foo ko fekk moo ngi ci njabootam di foo di kaf di ree nee kooku mooy ki gën ci yéen te man nag maay ki gën ci sama njaboot waaw waaye léeg-léeg nga gis ci góor ñi ñoo xamante ni bu ñu génnee dañuy fo ci mbedd mi kaf ree dégg nga waaye bu ñu duggee ci kër gi mel ni gaynde waaw loolu jikko bu baaxul la loolu jikko bu ñaaw la waaw ah, ni ngay kafe ci mbedd mi ak njabootu jàmbur gi di foog ñoom di reeg ñoom di leen wan jikko bu rafet jikko boobu boo duggsee si biir kër gi moo war a continuer waaye dangay nekk muus ci mbedd mi boo duggee ci kër gi nekk gaynde loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax moo tax yeneen bi ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam te man maay ki nga xamante ni maay ki gën ci sama njaboot ci beneen xadis si xadisu Aysa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne Jibril dañul di ma dénk sama dëkkandoo di ma dénk bàyyil xel xaqi dëkkandoo di ma ko dénk di ma ko dénk nee na xatta zanantu annahu sa yuwarisu nii nee na ba ma njortu ne man su ma dee wala sama dëkkandoo dee kenn dina ci donn moroomam ngir lan ngir dënk gu bari yi koy jibril sa alayhi salaatu wasalaam daan dénk aqi dëkkandoo kon loolu itam jullit di war na cee bàyyi xel bu baax a baax lépp lu mu man ci rafetal jëmee ko ci ay dëkkandoom na koo def waaye lépp loo xamante ni luy jógee ko ci moom la di lu ñaaw di jëm ci ay dëkkandooram loole jullit bi na ko wattandiku bu baax a baax a baax a baax a baax loolu moo tax jullit bi dafa war a góor góorgóorlu bu baax ci di jëflante ak nit ñi jëflante bi mu bëgg moom ñu jëflante ko ak moom ni ngay bëggee ñeneen ñi di jëflante ak yow jëflante bu baax noonee nga war a jëflante ak nit ñi jëflante boobu waaye bëgg nit ñi jëflante ak yow jëflante bu baax yow nga jëflante ak ñoom safaan ba loolu du melokaanu jullit du jikko bu rafet moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne faman ahabba an yuzaxzaxa an innaari wa yudxila aljanna falyatihi maniyatuhu wa huwa yuminu billahi wal yawmi al axir walyati ila annaasi alladi yuxibu képp koo xamante ni bëgg na yàlla soril ko safara jegeel ko aljanna nee na buy euh, euh, na indi li nga xamante ni moom mooy maniyom mooy na ko def fu dagan te ba mu koy def mu gëm yàlla gëm àllaaxira waaye mu ne wal yati ila nnaasi alladi yuhibbu an yuta ilayhi nee na na jëflante ak nit ñi comme moom ni bëgg ñu jëflante ko ak moom ci jëf jikko yi nga xamante ni moom mooy jikko yu rafet kon lislaam diine la joo xamante ni dañuy soññ ci ñu am ay jikko yu rafet ci ñu am ay jikko yu baax ci ñu jëflante ak doomu aadama yi ci jikko yi nga xamante ni moom mooy jikko yu rafet te jikko nag tey booy xool ñàkk na ci penc mi lool jikko ju rafet ñàkk na ci penc mi lool lool lool lool lool koo jëflanteel mu war la koo joxanteel rendez-vous du respecté rendez bi loolu yu ko waral moom mooy jikko yu yàqu yi waaw te lislaam dafa ñëwoon ngir defar société bi l'islam li mu jàngale ci wàllu jikko du jeex du xaaj ay textes yu bari ci alquran ak sunna ñëw na di ñu jàngal ay jikko yu rafet nañ leen war a jëflante ak suñuy mbokk jullit nan lañ war a jëflanteeg suñuy dëkkandoo nan lañ war a jëflanteeg suñuy soxna yooyu yëpp di ay jikko yoo xamante ni jullit bi su ko dajalee ñëpp bokk di ko dund da ngay gis ne dañuy dund société boo xamante ni kenn du lor sa morom mais bu fekkente ni nag dañuy dund société boo xamante ni kenn ku ci nekk daf dafay dund ak ananiya mooy bopp sa bopp man daal nu ma def ba génn ci baax na mais keneen sama yoon nekku ci moo waral problème yi nga xamante ni moom la dund yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala may ay jikko yu rafet allahuma inna naudu bika min alxala min alxalaaya walwaba walriba walzina walzalazila walfitana ma dahara minha wa ma batan اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الضين عن المدينين واشف مرضاهم واغفر لموتاهم يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم جنب بلادنا الفتن وصائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاح يرحمكم الله